ba tax na moom Pape Makhtar Diallo daal di àddu jëmee ci ki nga xam ne moo di président ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci ginnaaw bi nga xamee pour mu def lii di ay audit yóbbu li nga xam ne mooy ay corps de ci lenn ci li maire yi ak fépp foo xam ni ñoom ñu leen war nañ fa mën am ak accès ngir kat daal di saytu bu baax a baax moomeel askan bi le ndax kat daanaka moom Pape Makhtar Diallo daal dina xamle lenn ci ay maire Sénégal yi le ginnaaw seen payor yema 800 900 ba gis ni su ne kenn ku nekk ci ñoom laata ngay falu mun nañ ne amoo dara waaye daanaka bu ñu faloo lu yàgg dara ñu commencé di am ay building wala di am li ni mel te loolee dara warul ko lu leen ay parcelle ak li nga xam ne dañuy gis ñu koy commencé di jaay mu nekk mbir nga xam ne ci ay terrain ay njuuj njaaj loolu dafa war a jeex ci mim réew du Sénégal ba tax na sax moom muy xamle ci administration sénégalaise bi moom moom Pape Makhtar Diop li mu daal di xamle mooy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye war na ci def kéemtulaay kàttanam ba pouvoir central bi gis seen bopp bu baax baax daanaka moom Pape Makhtar di xamle ay délégation spéciale bu ne fu nekk war na leen faa yebal moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax kat loolu dafay nekk ay mbir yi nga xam ni lu daal di am solo la daanaka sax mu daal di àddu ñëw ci li nga xam moo di yenn ci mairie yi dañuy gis ni taxawaay bi am nekk mbir bi nga xam ne lu daal di ñaaw loolu la waaye Pape Makhtar Diallo yemu ci daal di xamle jamono gi loolee ko war a mooy dans les meilleurs délais dara dara ngir kat Sénégal gi daal di gis seen bopp bu baax a baax ci mim réew Sénégal gis ko seen bopp bu baax a baax ci gouvernement bi yees bi ñu fal ndax kat liñ daal di tax ñu fal leen du leen lu dul rupture gis li nga xam ne ay yàqu-yàqu amoon nañ ko fi te loolee tax na moom Pape Makhtar di xamle président bi fi woon di président Macky Sall daanaka mën nañ ne loolu ginnaaw ba mu faloo daanaka def te gis nañu bëri ñu ngi daan fayeku daanaka te mën nañ ne liggéey ñu woon benn yoon ci benn administration daanaka Pape Makhtar Diallo di xamle kon nag jamono guñ toll nii président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dem jubal ak jubal jubante la ñu woote kon nag na tax Sénégal sénégalais yi gis ci seen bopp bu baax a baax ci rupture boobu lee mu nekk mbir yi nga xam ni lu daal di am solo la tax moom Pape Makhtar xam ne ni jamono guñ toll ni wàññ bi mën nañ ne ci dund bi mënagul nekk léegi waaye li gën a am solo mooy fexeel la tout ci administration yëpp ñu fexe a tout daal dafa yóbbu li nga xam ne moo di corps corps de contrôle yi fexe ba xam li nga am délégation spéciale yi ñu fës fépp su ko defee liggéey bi daal di mucc ay bu baax a baax